Moussa tey nga fas yéene nag statuer ci lu am solo ah, muy la nouvelle vision des autorités sur l'éducation euh, ponk bu ñu fas yéene waxtaanee ak monsieur Ibrahima Wane. Mhm. waaw Aïcha noonu la mooy euh, Ibrahima Wane secretaire général bu organisation démocratique des enseignants. Mhm. Euh, du Sénégal muy ODES tey nag bon. kii ni ñu koy waxee di large focus la ñu bëgg a def rek ci njàng meeg njàngale mi vu que. Euh, mm-hmm. je pense bien que on est presque à trois mois. Mm-hmm. gouvernement bu mu installé woo ba léegi. te on a également l'occasion ñu ànd ak le ministre de l'éducation nationale ñu defak ak moom visite ci dakaar ci yenn écoles yi. Mm-hmm. donc euh, te aussi ñoom am nañ euh, xes nañoo liggéey ak moom maanaam xes nañoo toog ak ñoom. donc tout ça on lañ bëggoon ñëwaat ci moom rek euh, voilà donc monsieur kii wan li ñu bëggoon xam rek mooy euh, tey jii nii yéen euh, jot ngeen toog ak jëwriñ gi ñu dénk wàllu njàngale mi njàng mi njàngale mi di Moustapha Bamba Guirassy yi yéen enseignants yi syndicat d' enseignants yi alors ñu bëggoon xam accord xam nga mille accord 2018 deux ak 2000 2022 yooyu yëpp mi ngi si table bi léegi fan fan ngeen toll ak moom ci waxtaan comme ñoom ay kii yu yees lañ autorités yu yees lañ te bëgg nañ vraiment indi ay solution ci njàng meek njàngale mi. Euh, jërëjëf Moussa donc maa ngi nuyu ci plateau bi di nuyu aussi télé téléspectateurs yu Walf yi di rafetlu invitation bi effectivement le nouveau ministre de l'éducation Moustapha Guirassy euh, woo nañu il y a quelques semaines pour wax ak ñun si. il a fait avec nous l'état des lieux fi mbir mi toll wax na aussi ci passif bi mooy li nga wax léegi ci njëlbeen gi. ba pare profito présenté ñu vision am ñun tamit bu mu jëlee kàddu ñu wax ñu ñu rafetlu vision am euh, waxtaan ak moom ci défi yi ak surtout problème application la ñu am au Sénégal euh, di rafetlu tamit moom li mu def parce que depuis Serigne Mbaye Thiam ba léegi ministre yi fi jàll yëpp. ils ont fait preuve d'ostracisme la ñuy wax ak ñi bàyyi ñële ku leen neex la ñuy waxal finalement il n'était pas objectif bref c'est le passé bon c'est les trains qui arrivent à l'heure qui nous intéresse mm. Mm. mais moom quand même démarche de rupture la def ci kaw loolu bi ñu defee comme état des lieux xamal nañ ko ni programme bu Diomaye bi seen programme bi leen fal ñoom c'est cinq grandes orientation et quinze axes mm. Macky Sall mi fi jógee moom trois axes la defoon ak vingt-sept projets phares mais ñun ci suñu gis-gis ñoom c'est troisième orientation bu programme yi ax deuxième axe bu mag yi capital humain gisuñu différence bu bëri parce que éducation de masse la ñuy woote de qualité ak adéquation éducation emploi mais éducation emploi adéquation boobu amul waaw ñoom tamit li euh, ñu ne ko défi bi euh, vision bi defar am congruence ak donc euh, mission yi. Mm-hmm. ak ambition yi. déjà moom vision bu mu présenté nee na donc euh, il veut de l'efficience au niveau de l'éducation. Mm-hmm. ba pare une éducation bi nga xam dafay adossé à nos valeurs c'est-à-dire suñu suñu démb ak suñu nekkin ba pare ñu am une éducation résiliente defe naa Covid bi wane na ni suñu éducation résilience bi dafa des ci biir loolu am na défi yu bees. li ci mel ni réchauffement climatique. Mm. barki démb laa jóge Casamance. mais damay dugg di daw oto bi. Mm. affiché cinquante degré. man jàngale naa foofu pendant des années. Mm. mais c'est du jamais vu. le réchauffement climatique c'est un défi énorme ba ci suñu dëkk yeeg yooyu parce que ça dépasse le set setal bien que président woote na premier juin mais ça dépasse cela il y a un défi beneen affaire mooy le développement de nos filières scientifiques et techniques parce que tant que jàngaluñu suñu langue nationale dañuy nax suñu bopp. ma jox la exemple bu ndaw ñun suñu calculer base 5 dërëm ñaar dërëm ci suñu imaginaire populaire suñu imaginaire imaginaire dërëm cinq la. alors que français mathématique base 10 dañuy jàngal booy en arithmétique ba pare le premier jour à lecole l'enfant vit un drame. Dakar sax tane na y a la télé parfois y des parents un peu di wax tubaab sa yaay mais ailleurs. xale bi du ma sa dégg làkkaama bi euh, kàllaama français nga baal ma ci kàddu bi jour la koy dégg man sa li ma njëkk a en quatre vingt quinze sama première année bi may dugg classe j'avais une classe de CI na ma dugg booy ne leen debout ñoom ñu ne ma debout tout en restant assis donc loolu noonu ñuy xeeb mooy suñu problème beneen affaire bi euh, donc l'intelligence artificielle et économique man maa ngi collaborer ak beneen université bu nekk bitim réew je prends là-bas des cours en ligne boo tukkee ba ñëw ci euh, sànq ñun ne li xale yi di wax nekkuñ ci axe bi axe bu baax bi ma jox la exemple internet les réseaux sociaux quatre-vingt-dix-huit pour cent des contenus tey jii ñeneen yeneen xeet ñoo koy defar jëlal TikTok rek c'est chinois ñun continue yi foofu defuñ ci dara te fa jëm donc défi yi bëri na ba ci financement xam nga ñu ngi naan impôt le régime actuel c'est c'est normal c'est dirigé par des gens du fisc. Mm-hmm. mais le défi impôt école bi impôt mënu ko yor ba suñu état bi la responsable responsable sociétale d'entreprise RSE bëgguma tudd yenn entreprise yi tey ay milliards la ñu jël di ko yóbbu bitim réew fii la ñu koy amee. Mm-hmm. mais mënuñu sax defal centre de formation mënuñu tabax classe tey état bi man de su ma je suis pas politique. Mm-hmm. mais su yàlla defoon tey ma jiite réew mi. salaire kese lay fay. mais tabax. ak intrant yi. sociétés yi nekk fi tibb ay milliards kii bitim réew ñoom ñoo koy def et par force. ku ko deful ma annulé sa licence wala ma génn la jël keneen ku ko nangoo def xoolu Kédougou la paradoxe article huit bu code minier bi suñ ko modifié woon tey jii ñaata kilo or moo fay génn minerais yi mais école yi abri provisoire ñoo fa nekk enseignants yi amuñu sax boîte pharmacie pour te dire c'est un paradoxe da ngay nekk ci école ñoom ñi def seen i mine mairie di xar état bi day tabax ñoom suñu doon seen dynamite miir yi di xar ba pare du ñu table sax tey Kédougou boo defee planification d'éducation en matière de ratio livre élève wala nombre de table banc élève foofu la gën a wàcc ak yeneen nag yeneen mën naa jël exemple le cas de Diogo et cetera donc défi bi loolu la le contenu tamit y a problème on a plus de vingt-deux langues codifiées ban langue ngay jël euh, le président parle de de trilinguisme nañ ci boole anglais dugal anglais langue nationale ak arabe trilinguisme mais dafa am ay cours marginaux dafa am ay cours supplémentaires ñoom defuñu ko je ne pas politique bon aar suñu élection ñun bokkoon nañ ci fii lañ doon marché bay ci suñu waar mais li leen di wax ñoom le PSE la ñu gën a moo gën a taxaw ak programme Diomaye neexut a wax nag ba pare y a un passif ma jox la exemple bu ndaw bien que Ousmane Sonko dem na Grand Théâtre def na fa lu mu fay def waaye waruñ le débat de fond quoi tey jii y financement de l'éducation mais tamit am nañ ay parent décisionnaires mm. décret la rek dañ ko war a signer mais problème lu tax Macky ñoom nous avait ils avaient reçu la partie syndicale wax leen suñu ñëwee au bout de quatre-vingt-dix jours nañ ko def quatre-vingt-dix jours mm. mais pourquoi defuñu ko c'est parce que boo ko laalee IPRES c'est pas des enseignants décisionnaires que suñuy cotiser IPRES mm. parce que la loi elle générale impersonnel et applicable à tous. bu ñu ko laalee tey jii il faut ñu yóbbaale ñëpp nañ jàkkaarloog syndicat yi wax leen dëgg. ne leen loi bi mënuñu ko def soit dañuy jël enseignant yi yóbbu leen FNR ñi nga xam ne dañoo amel état bi ñu defal leen ordre de recette wala ñu changer loi bi pour tous les travailleurs de ce pays. mais démagogie bi fi nekkoon ci Macky Sall moo fi nekk ba léegi moo fi nekk gum sur ce plan là. lenteur yi tamit ça persiste. tous les Mm-hmm. récemment maa ngi gis que ni le ministre de la fonction publique sur je pense cinq cent actes deux na ko depuis bu mu toogee léegi loolu c'est avéré wala c'est du. non cinq cent actes pour quatre-vingt-dix-hupt mille enseignants. Mmh. presque cent mille. il faut faire le ratio te am na enseignant bi nga xam ne mun nga xaar deux actes à la fois. sa carrière dafay compliqué que tey jii li gënoon mooy la dématérialisation des procédures ñu gëm ko gëmuñu ko c'est-à-dire mënu ma nekk enseignant nga bu may dugg nga laaj ma nationalité. laaj ma photocopie carte d'identité laaj ma état de service effectué ma defar yëpp teg nga scanné ko am nga base de données dem ba ci biir sama sama tur am sama date de naissance nga laajaat ma les mêmes pièces ba pare euh, chaine de transmission bi les IA et wax naa nga man il faut former il faut une école de formation CRFP yi dañu war a jouer seen rôle le personnel administratif parce que le passage est trop sec damay nekk maître contractuel wala ma nekk un ko ma quatre ans de service parce que inspecteur bi inspecteur bi sama mbokk la mu jël ma le spoil système suñ ma suñ ma indee je je damay raxas ba mu set indi ay enseignants yu bees moo ko lu ñu liggéey bi normalement tey jii avec la dématérialisation naka la dossier mën a defee entre euh, Kolda wala Tamba Dakar. Mm-hmm. deux mois. alors que da ngay cliquer rek mu dem donc loolu ñoom c'est une faiblesse 500 actes c'est kooku c'est c'est une goutte d'eau xam nga nañu si yë acte tey boo dem ñun la mi ngi visa euh, mi ngi visa mi ngi chef de bureau man je ne comprends pas waaw mhm. ah, vraiment changé wul moom 500 actes vraiment lu ndaw la mi ngi xaar leneen ok léegi le sort des décisionnaires également yaa ngi ko doon souligner tout à est-ce que aussi ministre bi parce que ñoom c'est une situation c'est tellement délicate donc est-ce que moom apporter pare na pour apporter ci ay solution vu que la situation est inquiétante chez eux waaw xam nga euh, c'est-à-dire lu ñu fàtte mooy décisionnaire <coughs> yi dafay impacter sur la retraite actuellement FNR cotisants yi bëriwuñu bu njëkk ba la ratio ki ratio bu normal mooy cinq travailleurs moo war cotiser pour un retraité mais actuellement c'est mooy de deux travailleurs qui cotisent pour un retraité ba pare IPRES soo ko euh, organisation tripartite la le patronat day toog travailleurs yi toog état bi toog mais ñun la partie syndicale on s'est un peu trompé de démarche on vise la gouvernement alors que gouvernement bi benn voix am travailleurs yi am benn voix te te te li ma la wax sànq sa retraite yi boo koy boo koy laal c'est pour le monde mm-hmm. léegi soit gouvernement bi lan la mën a def il prend tous les décisionnaires defe naa motuñu vingt mille mu jël leen dugal leen fonction publique euh, FNR mais dans ce cas dafa laaj ay cotisation antérieure est-ce que agent bi nangu na ñu ko defal koy ordre de recette parce que cotisation xam nga tey ji man su ma nekkee FNR sama cotisation 35 pour cent la euh, ki nekk IPRES 14 pour cent la par exemple soo yëlee régime général damay cotiser cinq cinq et quelques pour cent li ci des état bi complété ma ko bu dee man mi nekk FNR 12 pour cent laay cotiser état bi yokkal ma 23 pour cent moo tax retraite yi du benn mais nag retraite yi du enseignant yi rek la concerné ba pare dafa am lobby bu nekk ci suuf. Mm-hmm. y des gens extrêmement haut placés c'est des décisionnaires. ci yeneen corps mais dañ nekk à des positions stratégiques ñoom nekk fonctionnaire arrangé wu leen toog IPRES moo leen gënal ba pare patron donc IPRES tamit est na que nangu jël IPRES dafa am ay problème mm-hmm. est-ce que dana nangu yokk charge am yokk taux de retraite yi pour tout le monde donc xeex boobu te décret bi du enseignant rek ñoo ko moom xam ni ñu ko bokkal ça c'est une difficulté réglé mais aussi périmètre financier bi état bi ne woon nañ ci Macky Sall vise euh, versé nañ sept milliards pour tenir en compte pour corriger yenn erreurs yi man li ma gëm mooy tey warul am complexe décisionnaire fonctionnaire est que bu ñu ko defoon comme yenn pays yi quatre-vingt pour cent du dernier net nga yóbbaale ko retraite parce que avec les progrès techniques et scientifiques actuellement les gens dañu romb cent cinq di dem de plus en plus te defe naa boo retraité vulnérable ci nga gën a soxla xaalis dañ def loolu pour tout le nga nekk prof d'université nga nekk instituteur xam nga ñu tollale affaire yi dañ ko doon ci tubaab bi c'est des complexes euh, gis nga teel liggéey def une bonne carrière waroo am complexe ak ku jàng ba quarante ans doo ko nekk docteur wala professeur d'université c'est-à-dire écart bi warul travailleur dafa war a am dignité am 80 pour cent du dernier net boo demee yeneen pays noonu la ñuy def ci avait un million boo retraité ñu jox la sa huit cent mille tu fais une retraite dorée mhm. mais un Sénégalais ou un Africain il a le droit de voyager à travers le monde def tourisme wala def def loisir mais ñun xoolal xoolal suñu structure familiale li ñuy liggéeyee gis nga malgré les augmentations yi Macky Sall defoon ils ont chargé tous les comptes tout le monde est endetté jusqu'au bout il des gens qui qui qui ont net de cinq cent mille mais ils se retrouvent cent mille francs parce que quand même sur le plan culturel am nañu war a xoolaat le mal est profond ba pare euh, les gens dañuy def investissement yi nga xam ne dafa lourd tout le monde rue vers le bâtiment parce que sa retraite moo la stressé ñi ngi def ay tool loolu bonul naam mais d'ailleurs c'est interdit même par la loi 6133 un fonctionnaire tu ne dois pas faire du commerce et pourquoi les gens font du commerce c'est parce que aussi éducation dañu am une vision tu ne vas pas trouver là-bas un économiste de l'éducation tu ne vas pas trouver là-bas un planificateur ou bien un sociologue donc éducation ak euh, kii finance dafa am lu bëri lu ñu dafa am benn lien bu ñu war a def un lien étroit entre l'économie la société et surtout l'école xoolal tabaski bii di ñëw rek tout le monde est stressé donc Sénégal euh, ay coow Ousmane Sonko grand théâtre ak ay Diomaye Macky def na lii dafa am benn lenn lu am on ne peut pas se passer de la banque mondiale et du FMI suñu état yi nu mu toll la à moins que nga changer monnaie xam nga et vision bi claire mag deux mille trente cinq le PSE fii ba deux mille trente cinq Sonko mënu ci dara moom la ñu appliqué par force parce que déjà am na cadrage yu ñu def ba pare. Hmm. léegi déjà moom mu ngi ci enjambé vision deux mille cinquante. c'est parce que nous ne sommes pas formés en analyse de politiques publiques par rapport aux européens yi foofu ngay marché sa soxna sa goro say doom ñëpp ñëw ci marché bi. télé bi yàqu quartier bi def ko un problème mais fii euh, léegi mun daal xaw ma dama jox somnifère xaw ma mais métti na de métti na moom. <laughs> ok donc euh, li ñu bëggoon waxaat mooy euh, le ministre de l' éducation nationale il insiste sur la transformation systémique c' est à dire ñu jéem a digitalité école bi ak yooyu doonu mhm. te ku nekk xam na ni yaa a des disparités. fii mhm. Dakar tout est clean. tout est mhm. nickel le monde rural. amuñu accès ah, am ñuy amul téléphone ñu ak kii électricité électricité et tout ça mm-hmm. est-ce que gis nga ni loolu c'est possible dans un monde boo xamante ni également il presque six mille abris provisoires waaw mm-hmm. ah, li ma wax sànq rek le problème deux défis majeurs s'imposent à financement continue man euh, moom au moins c'est un homme du sérail parce que gis nañ ay structures yu mu te def na montage business plan defar ay école ba état bi quand même bon fu indi ay étudiants yoroo ko xaalis donc kooku war na mun a liggéey système bi mais erreur bu njëkk mooy pourquoi trois ministères pour le secteur de l' éducation enseignement technique formation professionnel ba pare éducation ba pare ministère bu nekk am nga sa programme de formation même si c' est de manière résiduelle am sa budget loolu c' est des erreurs li mu wax sànq financement bi tant que rek lu mu défi bi ak problème mu continue yi duñu changé de manière structurelle ba pare financement école bi dafa am lu ñu fàtte privé bi mi xoolal tey boo amee ñetti doom nga yóbbu leen ñu def préscolaire élémentaire ba lycée jaar ko privé te dépense en moyenne vingt millions du maa ko wax c'est des certifiés mais vingt millions ñaata entreprise da mun defar wala ñaata kër ba pare nga nekk ci location wala sa doom pare nga toog di la xool kër gi nga yor ko donc euh, économie pour ñu trans pour ñu transformer école bi on for il faut ñu poser une question fondamentale on forme pour quoi et pour qui. Mm-hmm. ñun on forme pour les tubaab pour la France principalement te France soxlaatul suñuy produits parce que moom ay produits am dañ ko jaaxal moom su tabax ay bâtiment la ay enseignants je pense que ak accès boobu baaxul gis nga intelligence artificielle ak intelligence économique il faut aller vers ça. Mm-hmm. normalement les métiers xale bu dem ba seconde centre d'orientation scolaire kooku dafa am métier bu dafa am rôle bu indispensable bu mu doon joué à l'époque mais da ngay am BFEM ba bag le psychologue conseiller du sax xool sa dossier mënu ko un seul psychologue conseiller ou deux pour toute la région de Dakar xale bi normalement tey jii parce que intelligence dafa bëri façon tey jii sax retraite BIT jéemoon na ko formaliser l'informel di leen proposer ay retraite ñu ne retraite bi ñaata la ñu leen ay quatre-vingt mille cent mille par mois mun loolu dama koy liggéey ci demi journée donc euh, tubaab bi fi ñuy xooloo du foofu il faut ñu gëm suñu bopp ba pare tey jii defar ay chaîne de valeur mais chaîne de valeur bi kan moo koy porté j'ai un éminent professeur de l'université que je respecte beaucoup il a beaucoup dafa def ay filières chaîne de valeur yi ñuy wax ni Sénégal jarul ngay créer yëpp boo demee université Cheikh Anta Diop wala nga dem ci yenn école yi mémoire yi foofu dugal fii xoolal serrure loqué dafa def ay montage wane ni fii ñaata emploi lañ ci mun a créer même atelier menuiserie yi dañuy dagg muy wadd noonu rek loolu industrie la diggante Kayar ba Saint-Louis suuf si boo ko tamee boo boo ko tayee boo boo boo ko tamisee portable écran yeeg euh, kaas yi ñuy jënd tabax suñu jigéen ñi seen kaasu suweer kopp tabax yooyu noonu mais ñun ñoo am affaire yi am nañ ko fi xoolal tey jii boo jëlee benn étudiant nga ne ko yow doo paysan wala doo éleveur c'est un entrepreneur agricole mu génn UCAD nga formé ko <clears throat> am na benn unité dix million lay jar li lay defar meew bi bu ñëwee <clears throat> li ñu def ko lay kaye li ci des ñu def ko par exemple fromage wala bër mm-hmm. nga dimbali ko ci emballage bi ITA defal ko code barre mu war ci nga utal ko benn oto wala tricycle mu yóbbu ko ci supermarché yi mm-hmm. kooku soxlaatul ay état dimbali ma ma nekk enseignant dimbali ma ma nekk instituteur il faut aller vers ça école bi ci boppam à partir la classe de troisième ñu dem les meilleurs doivent aller à l'université état bi jox leen ñi nga xam ne seen papa am nañ moyen soo neexee mu fay leen wala bu neexee ñu mais président Barack Obama ba mu nekk président la pare fay son prêt milliards yi ñuy sànni nii les gens m'excusent man fac lettre laa génnee mais fac lettre ay fac droit li ñuy ci xaalis dañ ko jël yóbbu ko feneen néew ma nag droit amul njëriñ néew ma lettre amul njëriñ boobu la ñuy xaar. loolu moom ba pare RSE bi ñu ñu exiger e une banque xam nga am na benn année il y a dix ans de ça les banques sortent deux mille milliards la ñu doon génn muy dem France France seulement hein mm-hmm. sans parler les banques anglaises ak les multinationales qui sont là le budget du Sénégal ci boppam mm-hmm. lu ko ëpp day génn fii di dem mm-hmm. parfois du avec des exonérations en patron de presse comme ni mu ko waxee sànq am na xaalis il a des milliards mais il doit faire quelque école journalisme mu mu def ko un général à la retraite wala un docteur à la retraite mun na di jàngal université gratuitement mooy naa quelque chose mais ñun on a des ressources humaines de qualité man j'ai eu un peu à tra à voyager au niveau des États-Unis am benn association ma dugg ci benn panel mais ay scientifique de au niveau nekk ci université yi foofu di jàngale xam nga pourtant le président euh, rwandais kii nu mu tuddati euh, Kagame qu'est-ce fait il crée une grande école mu ne leen léegi amatul dem jàngi bitim réew day dem awaat Oxford les meilleurs nga ñëw def pige nga jàngale ñu jëlal le billet avion nga jàngale dem logiquement tout depuis 2000 ils ont désacralisé l'État yàq école bi man de su ma doon euh, normalement décidé mm-hmm. bépp décideur bu jël sa doom yóbbu ko Canada wala États-Unis mu jàngi waratuñ la falaat parce que loolu du yoon université Dakar nekk fii on a d'éminents professeurs suñu y a plus de huit cent africains qui ont leur PhD dans les universités nord-américaines mun nañ créer un réseau ñooñu ñëw fi jàngale mais nga nekk président wala municipal de l'école te say doom ku am bac BFEM sax nga yóbbu ko bitim réew it dépense beaucoup de milliards où est le patriotisme. kon dañuy nax quoi li ñuy wax ni di. non gëmuñu ko transformation systémique bi c'est impossible. non mooy problème. Mhm. volonté politique ak un patriotisme. malheureusement. ok Seydina. malheureusement alors euh, Moussa. waxtaan bi neex vraiment mmh. on aurait euh, bien voulu continuer parce que li muy teg aussi euh, tegu na. et mmh. que ku ko dégg xam ne vraiment xam-xam lay waxe euh, Moussa mais malheureusement waxtu bi xot nañu. waaw xam nga rek li duuf si naj bi <laughs> xëjul si ça aussi. waaw ah, depuis lors le ministre insiste sur euh, la transformation systémique et tout ça donc il a ko tamit ñu dem dans le fond pour savoir est-ce que réellement euh, lu ñuy wax noonu xam nga c'est faisable wala déet donc euh, en tout cas j'ai un grand merci à vous. voilà merci beaucoup voilà bu baax a baax monsieur Ibrahima Wane on rappelle que yaay secrétaire général de l'organisation démocratique des enseignants euh, du Sénégal nekkoon gan ci euh, rubrique éducation jaajëfal lu baax a baax mm-hmm. nous sommes rendez-vous prochainement incha ci réveil bi xam naan on espère vous revoir mm-hmm. entre temps ñu dem seeti ci l'invité de PEF